Sénégal ak Reliance seen Money Express bi. waaw man la Cheikh Diouf fii ci dakaar jot naa sama xaalis léegi ci Money Express ànd ak Reliance fële ca Gambia dañ ma koy envoyé léegi ma jot ko léegi. rax ci dolli dinañ la dalal dalalin gu feex nga yónnee wala jot sa yóbbante xaalis ba mut ngay muuñ di dem ndax suñu liggéey dafa set. Money Express ak RIA ànd ak Reliance Financial Services ñu ngi wecc dundi doomi aadama yi ci anam gu gën yónneel wala nga jot sa yóbbante xaalis ak Reliance ci lu yombate gaaw. sama caamee ki ci gisee. jigéen sama yow moom gëj naa laa gis yow bii rafet na bii bii kañ la nii. ràpp ak jàmm waay mbaa incha nga ko kay. Ah. Isma Jaama yow insurance dañuy fay. déedéet Insurance Company ca Kairaba Avenue ñu bokkuñ ci ñooñu de. ñooñu ñooy ñaan. lu weesu fanweeri at ak juróom-ñaar ñu ngi ci biir réew mi di ñu aar suñu wàllu moto yi. kër yi yoon yi tukki yi sa xaalis sax dañ koy aar. déedéet xanaa. waaw waaw ñu wóor lañ nag te mun seen liggéey seen teewaay ci biir réew mi yokk na fi kóolute de. Ah, loolu de neex gis nga bi ci gën a tee neex nag ñoo gaaw a fay yàqu-yàqu. dañooy fay. dañuy fay yàqu-yàqu ci ni mu gaawee. boo eboon daal dawal dem incha yi. ah kon xaaral ma dem dafal gaaw moo gën faju. jërëjëf suma caabi. jërëjëf de bii moom da ko war a incha ah. xaaral ma ah, waay waay waay rafet ak jàmm waay. Gambia National Insurance Company seet leen ñu tey pour seen bépp insurance. viral conjunct.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 wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin at-tahirin <clears throat> assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen suñ mbokk yi nga xam ne yéen nañuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkale ci at mu ees mii nga xam ne ci lañ duga ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla def atub naataange yàlla yokk jàmma ji su ma ne at mu ees mi nag mooy islamic calendar bi muy weeri muharram bi nga xam ne taxaw na ñu ngi ziyaare jullit ñi ñépp bàyyi kenn nag di ko jiitalee ci ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppi réew mi ak nguuram di ziyaare itam aima yi ak kilifa aada yi ak kilifa diine yi bàyyi ci kenn ak képp koo xam ne ñu ñoo seetaan fii ak ci biti tey nag fas nañoo éenee waxtaan ak yéen ci kàttani yàlla tuuti rek ci bés bii nga xam ne wala xew-xewi diine bu mag bii nga xam ne mu ngi ñëw ñuy ko ooyee yawmu ashora muy tamxaret ñu ko ooyee fii bési tamxaret ñu ngi delluwaat ci alquran <coughs> yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم yàllaa ngay وقت القرآن ويرينا ne weer yi nga xam fukkala ak ñaar fukki weer ak ñaar mooy benn at yàlla ne moo jël fukki ak ñaar def ko muy at kero ba nga xam ne ca la bindee asamaan ak suuf lii mooy li nga xam ne mooy li ne ci téeréem bi te lii muy diine ci jub fukkiweer ak ñaar yooyu nag suñ boroom ne am na ci ñeneenti weer yoo xam ne yu ormal la weer yoo xam ne jox na leen orma yonente bi alayhi salaatu ci biir weer yooyu mu wax ne buñ ci tooñ suñ boppa fiiha arbaatun xurum am na ci ñeneenti weer yoo xam nag ne yum ormaal la buñ ci di tooñ suñ boppa fala tazlimu fihinna anfusakum suñ borom ne buñ ci di tooñ suñ boppa ana lan mooy tooñ suñ boppa mooy def mooy def li nga xam ne moom tere nañu ko li nga xam ne daf ñu ko tere ñu bàyyi ko ci biir weer yooyu parce que biir weer yooyu baakaar daf cee gën a rëy su ci defee baakaar dafaa gën a rëy su doon benn daf koo fulandi muy fukka waaye lu baax loo ci def itam daf koo fulandi mu gën a rëy moo tax mun nañu fala tazlimu fihin anfusakum bu leen fa di tooñ seen boppa tooñ seen bopa nak mom rawut nag li la yàlla digal nga bàyyi nga bàyyi ko di dem di def li nga xam mom moom la la tere moo tax yàlla wax ñu ne ci ñeneenti weer yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñu wax ñeneenti weer yooyu mooy lan moo mom moom bi mu ne àddina delluwaat na di wër jamono wëraat na ba toolu fam toolu won mu ne at fukki weer ak ñaar la mu ne at fukki ak ñaar la su fekkee nag ne fukki weer ak ñaar yooyu am na ci ñenenti weer yoo xam ne yàlla tànn na leen ormal leen bugga itam jullit ñi ormal leen mu ne inna zamana qad istadaara ka hayatihi yowma sama samawati wal ard mu ne jamono de lu na di wóor di wóor ba fa nga xam ne fala emon emoon keroog ba yàlla bindee asamaan ak suuf ba pare mu jël at de fukki weer ak ñaar muy at mu ne fukki weer ak ñaar yooyu nak am na ci ñeneenti weer yoo xam ne taana nako ko ko yàlla taanee yan moom mooy zul qahda zul hijja al muharram wa rajab mooy zul qahda weer wo passé na mooy jamono bi ñuy pare pour aji ak yooyu zul hijja mooy weeri aji ak muharram bii nga xam ne ci lañ nekkat ak rajab nga xam ne moom passé woon na muharram nag bu gisee ma isi yëpp dañoo wone rek ne biir muharram lañ ne dugg nañ ci muharram xëj na tey la juróomi fan yi sax muharram nag di weer woo xam ne weer wu yàlla fonk la weer woo xam ne weer wu yonent bi fonkoon la parce que ci la yàlla dooree ati jullit ñi ci lañ yàlla doore ati julin lu فجعلها حراما وعدم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم من ابن عباس من يالا جلنا نينتو وير يوخمنا وير أرام الله daf leen ormaal lépp loo xam ne jaam bi def na ko ci ñetti weer yooyu ñeneenti weer yooyu noonu yàlla dina fulandi yool ba waaye nag bu defee safaan ba itam nag yàlla dina ko fulandi itam léegi ci ñeneenti weer yooyu mu xaram bi nga xam ne moo taxaw muy weer wu màgga weer la woo xam ne ci la yàlla ubbee at mi amul benn weer boo xam ne gën na koo màgg gannaaw weeri koor moo tax nu bugg ci nag ñuy cee oor weeri koor moom rekk mooy weer wi gën a màgg weeri muharram bii te ci biir muharram ci lañ am yow mu asora muy tamxaret gi moo tax nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam daan digle pour ñuy cee oor mu ne in kunta saaiman baada chahri ramadan fa sumil muharram fa innahu chahrullahi taala fiihi yowma taaba allahu fiihi ala qawmin wa yatuubu fiihi ala qawmin axarin mu ne weeri muharram weer la woo xam ne weeri yàlla la weer wu màgga la su dee da ngaa oor gannaaw weeri koor na nga oor ci weeri muharram bii parce que weeri muharram am na bés boo xam ne yàlla daan na ci jéegal ci bés booba nit ñu bari ay xeet yu bari yàlla jéegal